asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yéen mbokki jullit yi ak fu ngeen mën a nekk ci kaw suuf yéen mbokki groupe gi rawatina yéen mbokki groupe bi maa ngi leen di nuyu di leen siyaara di leen ñaanal di sàkku seen ñaan di leen ndokkeel ci guddig bi gi di ñaan suñu borom nangul ñu ko te yàgg koy teeweel lool lool lool ànd ak wér ak wérle tabaarakallaahu axsanu xaaliqiina kontaan nañu kontaan nañu jërë ngeen jëf di sant yàlla mi nga xam ne moo ñu dimbale ba ñu doog ci bisimilah yi ma tëj alhamdulilah yi ci tafsir quran bi yàlla ñu ko may ci weer wi nag dina weer màcc alhamdulilah te ñu teyoo ko déwén di ko nettali ci jàmm ak salaam jaay na Muhammad sallallahu alayhi wa ñu bëgg leen andil nag naafila ni nek ci julli ñent rakka rak bu nek gannaaw nga boo fatiha nga jàng wattin bu mu jeex juroomi yoon def qul wallahu ahad bu mu jeex juroomi yoon def qul ya ayyuhal kafirun bu mu jeex juroomi yoon bo paree nga def astaghfirullah kam sa ne ko def lu suñu borom dina ko jéggal ay bakaram yi jitu won ak yi mujj yëpp moy da ngay jang faté bu mu jeex da ko tin bu mu jeex juromi yoon di qul wallahu ahad bu mu jeex juromi yoon qul ya ayyuhal kafir bu mu jeex juromi yoon bo paree nga def astaghfirullah astaghfirullah kam sa kàttan say bàkkaar ñeek yu mujj yëpp suñu borom jéggal na lako kon naafila ya ngi nonu ñu njëkkoon nor ak mu jono woor yëpp yan yàlla nangul ñuko bi jaay rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sallam muy guddi ñaar fukki ak juroom ñett guddi ñaar fukki ak juroom ñent seen naafila yi benn la jërë ngeen jëf yéen yàlla nangul ñu yéen yàlla nangul ñu yéen yàlla nangul ñu bi jaay rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam jërë ngeen jëf